léegi nag euh, su mbir amee euh, da ngay xool lan ba si mën a jàngat te ñun ba ñu demee Saly euh, semaine passée li ñu si jàngat mooy tey doomu Sénégal yi jàngalekat yi élèves yi soo leen mettre dans des conditions résultat dina am mettre leen dans des conditions mooy def leen école boo xam ne day am ay gaanuwaay école boo xam ne set na école boo xam ne accueillant na ak classe yoo xam ne feesu ak matière yi ñu di jàngal kenn du leen buure mais loolu suñ ko defee suñ ko defee résultat bi dafay suivre donc interpellé nañ si ñu xool ñu ngi siy travailler nag benn commission multidisciplinaire pour xool naka la ñuy wàññee matière yi euh, ñu ne leen également jàngalekat yi war ngeen xool nak nga leen di motiver parce que année yi passé yëpp jàngalekat yi dañ ñax ñaxtu rek mer wante mbas mi dafa ñëw mu am sursaut national mais nag mënul continuer ni ngeen fexee mu jàngalekat yi motivé mooy protocole bi ngeen signé ak moom su leen ko respecté ren xëy na di ngeen am résultat yi ngeen am wala yu yoo xam ne sax moo gën année deux mille vingt euh, deux mille vingt et un euh, ñu ne nag euh, deux mille vingt deux mille vingt bi dina jafe parce que dina am presque ñetti junni ñetti millions wu élèves yoo xam ni dañuy ñëw yokk si lim

peut-être ñuy jàng lundi ñeneen ñuy jàng mardi ou bien ñuy jàng ci suba ñuy jàng ce soir pour mën a respecter geste barrière yi euh, li si yokk également ne leen war nañu changer doxalin changer doxalin mooy matière yi dafa bari man keroog sax maa ngi naan di tooñ ministre bi naan ko man ba may def ah, troisième japon du Meiji lañ ma jox japon du Meiji ban njariñ la ma amal <laughs> def nañ ko troisième BFM mais ban njariñ la ma amal donc ñun dañu war a gëm suñu bopp génne si matière yu amul ah, fayda yi bàyyi matière essentielle yi waaw suñ ko defee waa xëy na ah, dañu tiire dañu am njàngat boo xam ni positif na tiire nañ ko si mbas mi dañu permettre également ñu am ay yu baax